الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله إليه المسير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا به الحق وأخذتم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم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 والصلاة والسلام على أصرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته danaa bu ñu santee yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne moom la yàlla waxoon ne inni bu'istu mualliman waaye tamit inni bu'istu li utammima makaarimal axlaaq ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne dafa waxoon ne yàlla daf ko yónni ngir mu jàngale waaye yàlla daf ko yónni tamit ngir mu mottali tedd ngay jikko yi njàngale moomu nag ak mottali tedd ngay jikko yooyu dara munu koo saxal lu dul daara du dul njàngaleem arab mu rek moo ko mën a saxal su ngeen déggee xale yi ñoom lu ñu annoncé ci bandu annonce bi dangeen xam ne am na fu ñu bàyyikoo waaye tamit am na fu ñu jëm te fa ñu jëm nag mooy fa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam junjoon ne ñi nga xamante ne ñoom ñooma doon ci kaw suuf si wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo yenu sama responsable sama mission ñun fa la ñu jëm ah ñu leen di woo mag ak ndaw mboolem tundu saafeen ak feneen fu dul tundu saafeen yépp képp koo xamante ne jullit nga te baatu ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ñor la ñu ngi lay woo ci bés bi ci conférence u al madrasatul iman bu xolpa nga xamante ne danañu def seen conférence annuelle le 16 ak le 17 waaye le 16 bi nag ñu ngi tàmbalee ci ngoon mooy 4 heures waaye ca dimanche ba danañu tàmbale 9 heures jàpp 10 heures incha allahu taala ñu ngi ci woo ñëpp képp koo xamante ne dégg nga suñu kàddu xamal ne mooy suñu lettre bi la waroon a jox waaye tamit jàppal ne mooy suñu invitation carte invitation bu la jox ñu ngi la ci woo lépp lu mu mën a doon waaye tamit ñu ngi ci woo képp koo xamante ne alquran ñor na la képp koo xamante ne diine ñor na la bàyyiwuñu benn kër ki dafa diine amuñu xaj ak seen waaye tamit bàyyiwuñu kenn kenn koo xamante ne def lu baax ñor na la moo xam um politique nga moo xam nitu baatin nga moo xam nitu bàyyi defal yàlla nga ñu ngi lay woo ci bés boobu waaye tamit ñu niñ ci woo tamit ci teewaay waaye tamit ñu ngi woote tamit di lancer appel ndimbal koo xamante ne ku ci mën a jàpp ci daara ji ndax suñu mbébét ak suñu vision ak suñu yéene du lii kese ah ku ñu gunge incha allahu taala bëgg nañu am daara internat goo xamante ne danañu mën a interne ñu bari nga xamante ne maanaam njàng mi day sax dak saafeen loolu la soxla ndax mag ñi tax ñu xam leen dara taxut nag lu dul njàng ak njàngale waaye sampoon pi daara yoo xamante ne ci mag ñax lañ ko doon woon loolu mooy suñu woote goo xamante ne ñu ngi ci woo ñëpp incha allahu taala maanaam ci mois de juillet bi le 16 4 heures ci ngoon dañuy tàmbale ak le 17 ci dimanche ba nga xamante ne 9 heures demi la ñuy tàmbalee bésu ñaareel ba waaye bu ñu demee ba ngoon incha allahu taala danañu am ay autorité yoo xamante ne ñu wàcc si ci barab ba waaye buñ fa wàccee incha allahu taala danañ def ni goo xamante ne ña fa teew te ay ndaw yebal leen danañ leen jox kàddu ñu waxtaan ak mbooloo mi faw ñu woo ki nga xamante ne mooy suñu kilifa nga xamante ne moom la yàlla teg ci gox gi boole ñu ak moom teewal fi njaboot si Haaji Maalik radiyallahu taala anhu di imaam Ahmadou Faye ak mbooleem li nga xamante ne ñoom la ko àndal nga xamante ñun ñooy moom kon yëf yi tamit yëfam la moom at bu jot daan na ko teewee rawatina at ren jii danañ ko ci woo ak mboolem ñu muy àndal ñoom ñëpp ak képp koo xamante ne safa nga ko te yaa ngi koy faral di déglu wala nga ñuy déglu ñu ngi lay woo ci bés boobu loolu daal ñu ngi koy ñaan ñëpp di tàllal loxo bu baax tamit waaye di ñaan yàlla yal na yàlla yóbbuñ ko ak jàmm yal na yàlla may ñu ndam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نقال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناء رفع سمكها